jàmm ba ëllëg incha allah. AGT News. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée AGT News. Ousmane Sonko est en vedette dans presque tous les journaux parus ce vendredi 13 octobre 2023. En cause, la décision du tribunal de Ziguinchor d'annuler sa radiation des listes électorales. Le juge réintègre Sonko en déduit et titre Réumi Quotidien qui souligne que sa réinscription sur les listes électorales a été même ordonnée par le juge. Réumi retient donc une grande victoire d'Ousmane Sonko et ses avocats en attendant la décision de la Cour de justice de la CDAO sur la légalité ou non de la dissolution du PASTEF. Le tribunal de Ziguinchor a à la radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Note pour sa part Sud Quotidien où Sabassi Faye ordonne la réintégration du leader de l'ex-PASTEF dans le fichier électoral. Le juge de Ziguinchor réintègre Sonko selon Walfou Quotidien qui livre les minutes d'une audience houleuse. Audience qui a duré heures maire de Ziguinchor sur les listes électorales. Le juge rétablit son coup, mais l'État grippe la machine, souligne ce journal. Ce que semble confirmer le journal LAS qui nous apprend que l'agent judiciaire de l'État a récusé le juge et a formé un pourvoi en cassation. Revenant aussi sur le procès, LAS rapporte que Yoro Moussa a saisi le président de la Cour d'appel de Ziguinchor pour éjecter le juge, juge qui a refusé de subir le sort d'Hippolyte avant langue avant d'être sanctionné. C'est un disciple de Mouhedine Samba Diallo, révèle l'AS. Et dans les échos qui soulignent que le juge récusé a donné raison à Ousmane Sonko, maître Abdou Djalikan, avocat de l'État, annonce qu'ils vont déférer à la censure de la Cour suprême par la voie du pouvoir en cassation. Le camp de Sonko entamera dès ce vendredi la campagne de parrainage, réplique maître Cyril Clédorli dans ce journal, où le juge Sabassi Faye accusé d'être le parent e a amené l'agent de récusation au premier président de la Cour d'appel de Ziguinchor. Le quotidien aussi annonce le pourvent en cassation de l'État après la décision du juge du tribunal d'instance de Ziguinchor d'annuler la radiation de Sonko des listes électorales. Mais en attendant, le journal de Madjambaldiagne retient que Sonko revient dans la course. Il a été réinscrit sur les listes électorales Sonko par le juge Sabassi aux yeux du quotidien Le Témoin qui retient sénégalaise, selon ce quotidien. Et le quotidien source A rapporte une double claque pour l'État, l'État qui compte mener la bataille finale devant la Cour suprême, selon l'observateur, qui parle par conséquent d'une victoire en pour Ousmane Sonko. Et le quotidien pointe justement ces recours qui menacent la décision du juge, juge qui aurait dû sursoir à statuer en attendant l'examen par le premier président de la Cour d'appel de Ziguinchor de la l'inscription de Sonko sur les listes électorales, ce qui fait dire à Bisby que Sonko a gagné à domicile, ce que Ndiaga avait vu venir, selon ce journal, qui annonce que le mandataire de Sonko va retirer ses fiches de parrainage aujourd'hui. Sonko a été ressuscité chez lui, voit pour sa part le regard, et l'info voit dans cette décision du juge Sabassi failli de réinscrire Sonko un camouflet pour l'État. L'État qui annonce un recours devant la Cour suprême dans Bakari Diata a été mis aux arrêts hier aux environs de 15 heures par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor, renseigne ce journal, qui souligne que pour l'heure, on ignore les raisons de son interpellation, car aucune raison ne lui a été donnée ni à ses pour expliquer son arrestation. Il a été embarqué dans le panier à salade des hommes en bleu et déposé à la brigade de recherche de la gendarmerie de Nema, où Moussa Sarr détruisait le réquisitoire du procureur dans le procès de Ndeifa Toufal alias Falfleur, selon Yor qui souligne que le parquet a requis trois enfermes contre la militante de PASTEF, rapporte Yor Yorbi, qui rapporte également la décision du juge du tribunal de Ziguinchor en faveur d'Ousmane Sonko. Sonko qui obtient un répit constate enquête où Maître Cyril Clédorli sent un vent de liberté et d'indépendance soufflé dans les rangs des magistrats.

démission C'est l'interrogation qui barre la une de la tribune, qui pointe le combat contre la vie l'insertion et l'emploi des jeunes perdus depuis belle lurette. Suffisant pour que ce journal s'interroge sur ce que l'on peut concrètement attendre de ce gouvernement si ce ne sont des promesses. L'État ne s'intéresse qu'à ses impôts et à son train de vie princier. Si on en à ce journal, qui dévoile les deux risques qui attendent Karim Wad,

explosion qui a tué deux Chinois au port de Dakar hier. En santé, l'Obs pointe une rupture de médicaments qui inquiète les malades du cancer. Au moment où Réumi Quotidien fait le point sur la cécité, une maladie aussi qui fait des ravages au Sénégal, et Réumi dénombre 165 aveugles et malvoyants. Restons dans Réumi où Papirahim est à cœur ouvert. Très critiqué dernièrement, le Médinois dit venir reprendre sa place. L'invité de la page People de Réumi annonce beaucoup quotidien. Le quotidien du sport annonce à l'issue du tirage de la phase de groupe de la Cannes 2024 un choc et deux bouillons derby pour les Lions. Il s'agit du Cameroun, un gros morceau à abattre, de la Guinée où l'on se souvient de Bafoussam et de la Gambie qui constitue une première qui s'annonce électrique aux yeux de stade où Sadio Mané pense que ça va être compliqué pour eux. Et pour le choc du 5 novembre 2023, Sunulombe rapporte une passe d'armes entre le Très bonne lecture, excellente journée à tous. AGT News.